Eh, dañoo war ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam jangal nañu ni bëgg sa réew wala bëgg sa gox ci jaamu yàlla la bokk wala bokk bokk na ci jaamu yaay jaamu yàlla yu gën a sell yi boolu waran minal imaan yi eh, loolee dajeet suñu jëm bopp ñu jàng li ñuy wooye développement local maanaam naka la ñuy soxalee ab gox eh, bu yàlla dogalee nga jàng ni ñuy soxalee ab gox yàlla dogalit maanaam bëgg-bëgg daje ñaar yooyu bu bu bu bu bu fengaloo rek mënul jël mënul jur lu dul pas-pas daanaka loolu moo ñu womat euh, ñu ciy dem daanaka depuis 2014 ba léegi ñu ciy dem ndànk nag dem ndànk ndànk di ànd ak xale yi ci yu bëree bëri bëri seen seen maanaam ni ñu yitewoo lu mel ni wàllu sport tàggat yaram lu mel ni wàllu culture maanaam dugal xale yi ci néegu lël lu mel ni wàllu jàppalante lu mel ni wàllu euh, euh, saxal ay garab ñu koy tuddee reboisement xeet yooyu yëpp vacances daan jot ñu ko def

may profité ci occasion bi rek encore une fois di ko félicité waaye di ko ñaanal it suñu mën koo moom it dëbb kattan ba yeneen yi nga xamante ne am na ko ci Mérina Dakhar am ko ci Kajoor suñu borom mën koo jàppale ba mën ko mottale loolu moo la ci bi nga tuddee sa ko euh, la motivé tey boo mhm. mhm. mhm. ñu doon leen taxawu nga leen wala comme ni nga ko waxee daanaka lu bëree bëri euh, dafay manqué waaye nag daañu daañu dajul suuf loolu moom lu ñu gëm la ndax euh, bu yàlla dogalee comme ni mu ko waxee rek nga jàng développement di ko jàngale daanaka ci école ak université yi da ngay xam ni le développement parfait nexis pa cest mën nga mën nga jéem sa kéemtal ay kattan ba dajal lu bari waaye liy matali doomu aadama moom ci suñu loxo suñu borom képp la ne loolu moom benn doomu aadama mënu ko waaye nag mën nga def ay pas di yéwénal lu bëree bëree bëri ci wàllu ndox ci wàllu courant ci wàllu santé ci wàllu éducation yooyu yëpp mën nga ci def ay pas ba di ko yéwénal je pense que loolu mooy la plupart du temps rôle maire yi donc yéwénal ba askan wi lu ci bëree bëri mën a oyof ci ñoom kon ni ko waxee biir mel na Dakar lu ci bëree bëri bëri manqué na waaye nañu reconnaître aussi que ni état aussi def na ci euh, lu suñu wàllu bopp mooy manquement yi nga xam ne dañu koy faral di gis wala li nga xamante ni tey état mënu ko def wala li nga xamante ni tey maire mënu ko def lu ci bëri bëri ñun dañuy dem ci point yu mel noonu di ci jéem a nax ndax lañ ci soulager les populations comme ni ma ko waxee jigéen ñi c'est une frange de la société malheureusement chaque fois dañ leen di xaw a ci lu bëri bëri surtout ay formation kon euh, loolu ñun dafa nekk point boo nga xamante ni dañ ci dañ ci dañ ci suqandiku bu baax a baax a baax moo tax ñu tënk programme bu ñu tuddee suqali jigéenu kajoor yi programme boobu dafay nekk loo nga xamante ni transformation des produits locaux Euh, ñu leen di former ci lu bëree bëri bëri saabu saabu bokk na ci matière boo nga xamante ne daanaka jigéen ñi moom la ñu ëpp lu ñuy utiliser tey boo ñëwee ci kër yi nga gis jigéen buy dem di jënd saabu loolu kenn ku ci nekk war na mën a xam ni loolu lu war a jeex la ndax saabu jigéen mën na jël ci diwlinam jël ci yeneen pexe yoo nga xam ne da koy am ci biir kër gi defaral boppam saabu boo nga xamante ne amaana du du itteewoo 500 francs wala 1000 francs yu mu bi jënd saabu lu mel ni eau de eau de javel tey war nañ mën a jàngal jigéen ñi que ni eau de javel mën nga rocci xobu niim am ay yeneen produit yoo ko jaxaseel ba nga mën a am eau de javel bi nga xamante ne tey daanaka bouteille bi mi ngi toll ci lu toll ci yaakaar naa bu ma juum ay 200 francs wala lu xeetoo noonu ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne tey jigéen ñi koy soxla li jëm ci wàllu waañ wi tey bisaab ak yeneen yi nga xamante ne te dafay aajowoo dafay aajoo tey tabi ci cin jigéen gi mën na ko am ci loo xamante ne daanaka day taqaloo ak wañam ñu melni micro jardinage donc yoy mu nek ay xeet yoo xam da fay da fay da fay soulager manam da fay oyofal dundin gi ñu nit ñu saytu gis ko ni suñu kurel amna ño na ñoo xam te ne mën ci jappalé ñu and ak jigen ci lolu ci programme bi tuddee Suxali jigéen donc mu yoy mu nek programme yo nga xamante euh, lu ci bëri da fay rëcc état wala mu rëcc maire donc lolu ñun tay euh, en tant que kuréel goo xam te day soxali yoy dañ ci dañ ci insister bo ñëw ci walu éducation la même chose éducation tay meun nañ état amana mi ngi jëm waye lepp matul maire yi amante tamit ñi ngi jëm waye lepp matul waye ñu dañuy xol li nga xam mëna ci jappalé xalé yi lu melni ay renforcement de capacité lu melni ay di leen ay stage au niveau des structures yi nga xamante kenn ku ci nek fa nga nekk naka la ñu def ba nga am stage bo nga xamante tay dina la permettre ngay mëna am ay ay ce qu'on appelle des capacitations euh, nga jël walu santé comme ay journée médicale wala tay ñu gis ko nga xamante loxom jotul gannaawam mu am ay jafé jafé ñu mëna xol xool naka la ñu mën suñu ay relation suñu ay xarit suñu ay am na jàmm wala ci biir kuréel gi naka la nit ñi mën a jaxasee wala boole seen doole ba mën a oyofal euh, kii nga xamante ne tey am na métit wala am na coonay coonay yaram donc maanaam daal noon daal la tënkoo secteur bu ñu gis daal xam nañu war nañ fa mën a dugal suñu loxo dañuy dajale suñu suñu suñu déem ak suñu daqaar ba mën a jëmmal lool donc loolu daal mooy programme bi nga xamante ne tey Suxali Kajoor mi ngi ciy dox ci lu bëri bëri bëri bëri wax nga ko loolu day firnde rek ni Kajoor mhm. mhm. xoolee ndax ci département bi nekk

waaw comme comme ni nga ko waxee euh, suñu borom bu dogalee tey nga dëkk ci dëkk bi mm-hmm. am fi say say say say say mbokk euh, man sama turandoo mi ngi dëkk Bëdi Jang mm-hmm. sama yaay mi ngi dëkk diggante Njonge Fall ak Loyon Ñokk mm-hmm. ak Kel ak Caar Caar ci loor ak euh, Jokkul Tàbbi sama wajur Kel donc ma am ay mbokk fu ne na ci biir Kajoor xam nga bu la yàlla wërsëgalee nga am juddu bu mel noonu biir Kajoor say mbokki bopp gëm li ngay def bu ñu jappalé rek lu bari mëna naa waye waaye loolu dafa am lu leen lu ko lu ko lu ko lu ko lu ko lu ko lu ko lu ci ñew dole ko ci bu wër moy liggéey bi ñuy liggéey askan wi ak taxaw bi nga xamanteni dañ leen koy taxaw té lepp di dëgg ci sama ci lima japp man ndax euh, ni ma ko waxé légui euh, suñ yan sala sa moo ko jangal manam bëgg sa dëkk ma bokk na ci li li manam manam ci ci jaamu yalla euh, loolu boko andé askanu bañu xamni yow li ngay def la ci ëpp seen ngeen kessel motax Euh, boo demee ñu leen dama leen bëggal yoral lu ci bëri bëri dañ lay wóolu te amaana noonu la demoon ci élection yi euh, suñu borom suturaan wax dëgg yàlla ñañu jàpp ñu doon woteel jëlawuñ leen Ndar jëlawuñ leen Dakar jëlawuñ leen Saalum hmm. waa Kajoor seen wàllu bopp ñoo ñëw exprimé wu wax ni kii kat bëgg nañu mu féetuñu fii euh, ñu jàpp ni kenn ku ci nekk def nga la nga def waaye dafa loo xam te ne tamit ni ma koy faral di wax rek te muy lu ma gëm muy dogal suñu borom yi hmm. ci dogalam yu sell yi moom moom moo wax ci ni wàllu njiit moom maa ko yoral sama bopp heure bu ma neexee laa koy jox kama neex waaye bu ma koy jëli du ma ko tàggu ci moom kon loolu moo doon gëm-gëm bi ñu en tant que doomu aadama en tant que ku ku gox bi ku bëgg gox bi def nañ suñu liggéey waaye la ca toppit mooy dogal suñu borom yi te suñu borom moo dogal ah, euh, suñu wéyjur suñu suñu suñu kilifa euh, rempile waat yoraat commune bi waaye ma leen di seedal ni lu ma ko yéene la man it te it incha allahu rabbi na ma ko yàgg defee noonu laa koy defee waat lépp fépp secteur ba nga xam ne mën naa ko jàppale dinaa ko jàppale te du ànd ak xuloo du ànd ak xeex ndax loolu du a jàppale tamit ca ko jiital nga def rek bis bu laaj jotee kenn ku ci nekk am nga sañ-sañ laaj kenn ku nekk am nga sañ-sañ taxaw laaj indi sa programme bu la askan wi la bu la askan tamit ñu ñu waaye comme a doon daal na na doon loo nga xamante ni maanaam da koy taxaw bi day mat sëkk mu nekk loo nga xamante ni kenn ku ci nekk danga nga yëg ni kii li tax ñu fal ko mi ngi fi te loolu la ñuy ñaan suñu leader yi nga xam ne tey dañu nekk dans le Kayor képp kuñ ci fal ak ndomb ak tàkk goo mën a am na population bi sentir ni yaa nga fa ndax gis bi ñu lay gis rek dafay def leneen gis bi ñu lay gis rek dafay dolli yaakaar kon maa ngi ñaan képp koo xam ne suñu borom dogal na ni tey nga nekk mair wala nga nekk euh, directeur général wala nga nekk PCA ak loo mën a doon ndomba nga sooxee ko biir Kajoor maa ngi lay ñaan nga gën a investir parce que population bi soxla nañ ko askan bi soxla nañ ko surtout la jeunesse. loolu bu jëm mhm. gis nañ ne communes yu bëri. Mhm. ñu ngi ñàkk seen espace. Mhm. ak seen wax mooy garab yi ak wàllu suuf yan engagement ngeen jël ci protéger seen ah, alhamdulilah xam nga boo ñëwee biir Kajoor yàlla dogal na tey am na kuréel yu bëree bëri bëri yuy juddu. Euh, occasion bi la pour man ma benn benn kuréel bu ñuy wooyee Kayer convention citoyenne mm. am na ay mouvement yu bëree bëri bëri yu yu judd te mouvement yooyu tey euh, maa ngi ñaan xale yi nañuy gën a gëm yooyu xale yi nañuy gën a dugg ci mouvement yooyu ndax euh, mouvement yooyu c'est des mouvements d'alerte li ce que les anglophones appellent early warning tey mouvement yooyu noonu la ñuy taxaw early warning system mooy loo nga xamante ni bu dara waree am wala amaana bala muy am. ñu saytu ko jàngat ko ba mën a joxe information bi loolu mooy early warning system yi nga xam ne anglophone dañu ko développé tey tënk nga ko ci ay programme yoo xam ne tey mi ci ordinateur yi mais ñun suñu concept mooy euh, par rapport ak ces questions bi espace bi wàññeeku zone yi nga xamante ne ni ñu koy dëkkee baaxul tali yi nga xamante ne amaana fa mu war a àgg àggu fa loolu ñun dañ ko tuddee ce qu'on appelle. ak yenn garab ak yenn garab yi nga xam ne dañ ko daan ràññee biir Kajoor te amatu fa muy ci wàllu reboisement boobu loolu ñun ñëpp loolu lépp boo ko tënkee dafay nekk ci loo nga xamante ne moom la de maîtrise de l' espace maanaam espace bi ñu nekk ñun suñu gox maanaam maîtriser wuñ ko maanaam xamuñu information yëpp tey tey bu ma ne tey commune Mbayeen tey yan genre garab moo fa nekk amaana bu ma ko benn nit mënee wax ñaari nit du ma ko mën a wax mm. tey bu ma nee mel na Dakar lan lan moo fa manqué kenn mën na ko mën na ko bañ a xam commune Koul lan moo fa am lu yokk loo nga xamante ne tey jarul ñu koy def biir Mérina Dakhar kenn mënu ko xam donc loolu tey dafa tënku ni tey war nañu àgg ci ay xarala yoo nga xamante ni dañuy maîtriser suñu espace xam espace bu nekk lan ak lan moo fa am gox bu nekk lan ak lan moo fa am gox bu nekk lan ak moo fa manqué gis nga loolu bu ko saytoo xool suuf bi naka la toll xool lan moo nekk ci kaw suuf bi xool lan ak lan moo fa am xool lan lan moo fa manqué xool gox bu nekk la nga am xool gox bu nekk la nga la nga manqué daanañu ko mën a tënk système boo nga xamante ne kenn ku ci nekk dinga nga a jox sa morom waaye kenn ku ci nekk di nga mën a am loo jëlee ci sa morom mu nekk lo ay facteurs yoo nga xamante ne dafay jouer ci li ñuy woowee tey intercommunalité donc mu nekk ay système yoo nga xamante ne wala ay xam-xam xamante ne tey mouvement yi nga xamante ne tey am nañ ko biir Kajoor à l'image de Kajoor convention citoyenne comme ni ma koy waxee woon dama leen ñaan ñu gën a liggéey ci ci ci secteurs yooyu ndax tey amana maa ngi def benn formation biir Mérina xaar boo nga xamante ne formation boobu aajowul sax ñu koy ñu koy amal biir Mérina Dakhar amaana formation bi bépp tey fi mu gënoon a amee solo ëppee mooy commune Pekes vice versa donc yooyu yëpp mu nekk ay ay ay ay systèmes yoo nga xamante ni wala ay concepts yoo nga xamante ni il faut ñu koy regrouper certes commune bu nekk tey am nga sa indépendance commune bu nekk am nga noo war a taxawee waaye nag waa faaw ñu xam ni Kajoor en tant que tel benn entité la suñu gox bi benn entité la ba ci ba tax na gox bu nekk war nga mën a xam sa morom lan la wara a mën a wala sa morom lan la wara a mën a manam intercommunauté bi faw mu faw faw mu am te lolit gis euh, na ni xawna soxé bu baax a baax baax ci suñu gox yi donc comme nim ko waxee tantôt no la laa koy waxewaat encore une fois je je lance un appel à euh, au maire actuel di len wax ni euh, la la communauté regorge de capacité la communauté regorge de techniciens yo nga xamanteni li len li leen yitteel ba gën len yittel moy lan moy suxali gox bi ak lan moo lan lañ mëna def ba kenn ku ci nekk mëna mëna mëna gis sa bop ci li nga xamanteni tay moy développement bi euh, sama kaw bop la jël maa ngi koy yalla dogal leen maa koy def ci ay régions et régions Kédougou Ziguinchor euh, euh, Tamba Tambacounda actuellement à Saint-Louis def la ci commune bari bari au Sénégal même sur sur le plan international aussi la même chose donc pourquoi pas suñu Kajoor bi donc maa ngi ñaan maire nañuy gën a inviter les techniciens autour d'une table ñu réfléchir sur les questions de l'heure parce que tout n'est pas politique politique bi moom benn temps dafay jàll mais bu jàllee dañu xool kenn ku ci nekk expertise bi nga am ñu invité la ci jéem a xool naka lañ ko mën a tëggee loolu wax dëgg yàlla comme ni mu koy waxoon tantôt maa ngi ciy ñaan Kayor convention citoyenne vraiment mu gën ci am taxawaay gën ci am liggéey bo nga xamanteni inshallah war na mëna a jur pour askan bi yëpp xam naa ñu jeexale ci euh, bi nga campagne mm. jàkkaarloo nga est-ce que nekkoo paniqué woon manam tito woon jàkkaarloo koo xam ne mooy président groupe parlementaire effectivement bon lolo euh, les gens me demandent souvent challenge au niveau de euh, l'ordre des élections locales mm-hmm. est-ce que mesure nga pouvoir exactement parce que c'est un président groupe parlementaire. Mm-hmm. il était député c'était aussi le maire sortant. Mm-hmm. mais comme nous ma koy

kenn mësta dégg ñu ne la sëñ Tuubaa bocc na euh, lu mel ni lu xeetoo ci jaasi wala lu xeetoo ci leneen ak leneen ngir am li mu bëgg tey lépp da ko teg ci iman lépp mu teg teg ko ci ixsaan lépp mu teg ko ci ak bëgg goo nga xamante ni euh, da ca jiital euh, suñu borom ak wóolute goo xam ne da ca jiital suñu borom kon yooyu mu nekk ay référence yoo nga xamante ni tey il faut que ñun ñi nga xamante ni suñu borom dafa dogal tey ñu nekk ci ci politique bi nekk ci di yëngu ci gox bi faaw référence yooyu ñu ñu ñu koy sóoraale xam ne lépp du xët-xët lépp du fët-fët waaye lépp di lépp du ay histoire ak ak waxante lu bon ndax euh, waxoon naa ko ci benn interview jamono ci benn télé euh, képp koo wax lu bon rek jàppale sa sa bopp nga ko wax ndax ñun ñëpp ay maanaam ay mbokk lañ ba tax na jàpp nañ ni euh, ñun taxawaay boobu daal la ñu war a taxaw ginnaaw bu ñu suñu borom dogalee tey ñu am ay wéyjur yu tedd ñoo xam te ne tey ñooñu meññ ñu am ay référence yu mel ni Cheikh Khadim ñoo xam te seen doxalin yëpp amul benn bu ci ànd ak agression amul benn bu ci ànd ak xët-xët wala amul amul benn bu ci ànd ak yeefin na ah ñun bu ñu ñëwee ah, bëgg def leneen amaana dina jaaxal ñëpp noonu daal ñun la ñuy gisee suñu mbir eh, di ñaan suñu borom gën ci jàppale ba yéen ji nga xamante ne tey am nañ ko biir Kajoor am ko biir mel ko matal na ko waxee ah non non non subhanallah non non non non point de regret ah point de regret amul lenn lu ñuy regretter ci ci élection yi nga xamante ne passé na ndax bu doon tey dañ koy defaat loolu yàlla dogal Euh, li ñuy ñaan mooy suñu borom may ñu kàttan ak fekke ndax jamono bu bu am ci biir Sénégal war a am ci biir gox bi incha allahu rabbi ñun fas yéen fas nañ yéene am ci taxawaay ba ñëpp xam ne am nañ ci taxawaay waaye dogal yu tedd suñu suñu borom képp moo ko yeyoo te it jël ay mbiram loolu di xeetoo nguur maanaam mu dénk ko maanaam ko ko sob waaye ñun suñu wàllu bopp daal bëgg-bëgg lañ ci àndal goo nga xamante ni teguñu ko ci lenn ci ci baatu suqali

te loolu euh, lu wér la loo nga xamante ni tey am na ci gox yu bëri bëri tey ñu mën a cité fii ci àdduna bi. ñu bàyyi la kàddu waaw boobu boobu moom dañ ci kontaan trop. Euh, kàddu bu mujjee bi daal mooy encore une fois euh, di leen remercier bu baax a baax a baax surtout yow yow Modou Mahfouz wax dëgg yàlla sa taxawaay ci biir Kajoor ak passion bi ñu ci am suñu borom rek lañ koy seddal maa koy wax sànq sama wéyjuru góor maa ngi koy wax sama benn euh, wóllëre di wóllëre Kajoor war na fi ñëw pour def benn interview ndax pas-pas bi nga bi ñu ci àndal tey bu la neexoon nga ne ndax mi ngi taw bu la mi ngi nga ne du ngeen ñëw ndax mbedd yëpp tooy na waaye nga yor say caméra yor say appareil yoo nga xamante ne daanaka ay appareil électronique la te benn bugg ci ndox nga ñëw xuus ngir mën a def interview mel nii ci doomu Kajoor loolu ku amul passion mënu ko def te loolu mooy wane bëgg-bëgg kon nañu jàpp ni daal Euh, fépp doomi kadior ne wonn ko woné wayé lepp lu doomi kadior di euh, di taxawal tamit ñepp wonn nañ cee jàpp kon Modou Mahfouz maa ngi lay renouveler encore mon engagement euh ci lepp lo nga xamantene soxlo soxla nga ko wala lepp lo xamantene bëgg nga ko ci ci sa plateforme bi jappal ni man partenaire privilégié la ci té inshallah allahu rabi dinaa ko and ak yow beneen bi ci moy euh, euh remercier waat encore une fois sama wajuru góor alaaji ma Anta Diallo di ko ñaanal suñu borom may ko wër ba lepp lo nga xamantene ne lañ ko mën ko fekkee njaboot gi yëpp ñi nga xam te ne ñëw nañ ci màggal gi kenn ku ci nekkit maa ngi lay ñaan booy dellu tamit nga delluwaat ci jàmm comme ni ñëpp ñëwee na ñëpp delluwaat noonu ci jàmm delluwaat noonu ci salaam te ñu mën a waajal insha allahu rabbi gàmm yi nga xamante ni tey mooy ñëw benn ci suñu gàmmu bopp muy gàmmu Tiwaawan beneen bi ci bi nga xamante mooy gàmmu Njaasaan na ko ñëpp waajandoo insha allah suñ di ñaan suñu borom mën cee ak jàmm salaam